asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar yéen yi nga xam ne yéenay suivre seen seen sama xalaat euh, TV euh, xam naa xàmmee ngeen ko doyet ñu leen ko présenté muy professeur euh, Ousmane Ndiaye di tradi praticien xam naa nag vidéo tey bi moom dañuy ñëw ci benn feebar boo xamante ni bëri na ñu mu sonnal ci Sénégal rawatee na nag góor ñi xam naa la gën a yëpp voilà muy li nga xam ne mooy impuissance sexuelle mu ñu koy wooye tële maanaam góor goo xam ne daal amul kattan ci wàllum sëy ñu bëgg nak euh, tay professeur Ousmane Ndiaye euh, euh, jox ñu ci ay ay léral ba nit ñi xam exact moy lan ku mu dal nga mëne ko xam mëne xam nan nga ci indi ay solution ba xam inshallah allah partie bu njëkk bi dinañ jëma a ñëw ci li nga xamante ni moy impuissance sexuelle ci bopam moy lan moom lér ci nit bop nit ñi moy lan ba paré ñu nga ñëwul ñu tamit ci yeen complication ak conséquence lay am ci dundu nit ki ci ak jeexital ci am mhm. bo defee après ñu soog ñëw nak ci yeen solution moy maanaam kon professeur ñu ngi lay nuyu di la ziar. sëñ Pape ñu ngi lay delloo ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu mbokki spectateurs yi nga xamante ñu ngi suivre yëpp ak euh, ci waa sama xalaat TV donc ñu ngi ñëwaat ci seen beneen numéro ci fagaru comme ni ñu ko waxee woon rek mooy tey nag ñu ñëw ci impuissance sexuelle mooy impuissance sexuelle nag mooy baat bi nga xamante ni moo gën a siiw wala boog des années quatre jëm quatre vingt lañ doon gën a expliquer. moy impuissance sexuelle boko waxe rek xel yu bari dañ xam ci liñ bëgg wax mais ben nag scientifiquement baat bi changé na ba léegi daanaka le dysfonctionnement érectile mom le tubaab bi di gëna a utiliser euh, wala le trouble érection dysfonctionnement érectile moy ko xamni manam goor go xamni awram du juk du jóg waaw waaw kay donc moy ay impuissance sexuelle ak yu demee noonu léegi euh, terme bobu lañ gëna utiliser que terme yu ñëk yi. donc mu lay dysfonctionnement érectile mais Pape comme ni nga ko waxee rek feebar la boo xam ne du ma ne sax yi góor ñi la gën a yàpp mais da nga naan feebaru góor la góor ñi rek lay dal waaw waaw <laughs> dal jigéen ñi boobu moom feebaru góor ñi rek la góor ñi rek lay dal donc euh, dysfonctionnement érectile bi mooy lan muy impuissance sexuelle boobu mooy néew doole ci kàttanu sëy ci wàllu sëy maanaam bu ñu ko doon définir tey daal mooy ki nga xamante ni tey day fa néew doole ci wàllu sëy mm-hmm. léegi nag yooyu nag dafa am ay pàcc yu nekkaat ci biir

du jóg. du jóg bu jógee itam du dëgër. waaw kay du jóg loolu beneen feebar la moom la olof di wax yoom. kooku moom neexut a faj wala kenn du ko faj waaw koo xam ne moom boobu moom du jóg kooku moom la du yëg dara kooku moom il faut que ñu parce que tamit euh, jàngal la dañuy jàngale quoi vidéo bi moo ko laaj oh, day leer quoi euh, waaw kay waaw du leen jëriñ donc dafa am koo xamante ni mënul dara moom tëlewul mais dafa mënul xam nga kii tële ak mënul bokkul ci baatu olof. kitale mënoon na. waaw kitale mënoon na ba dem mu dem ba yàgg waa kay mënatul affaire bi dal ko. kooku dafa tële bu ñu ko mayee doole bu ñu ko mayee loxo mën na am mu ñëwaat. mais ki nga xam ne mënul woon moom ah. waaw ah, loolu mooy yoom kon. waaw mooy yoom presque daal noonu la mel. moom waaw moom lu ko kooku moom neexut a faj sama genre gi moom dama naa la mënuma koo faj moom laa lay wax. waaw waaw man moom dama naa la mën a a xam ne nag seen dëgër fi egg nañ ci dinañ la faj ak moom moom sama xam-xam eggagu ci parce que nit ki moom li mu judduwaale moom yaakaar naa ni day compliqué donc bu ko defee am na si ñoo xam ne sax dinañ xam seen bopp hmm. ba ñoom daanaka yu bëri duñ ci dugg hmm. mais léegi nag boo ñëwee ki nga xamante ne dafa faible dafa tële nga xam ne mënoon na mais dafa dem nga xamante ni nag dafa am lu ko dab loolu dal ko hmm. boobu la ñuy wax impuissance sexuelle faible wala faiblesse sexuelle kooku nag bu amee soit am na la jàngoro yu ko koy jox wala ay feebar yoo xamante ni moo ko koy def ba mu dal ko wala mu dem ak âge bi ba mu ba mu dal ko kooku dina neex a euh, faj donte du neex a faj sax mais mën nañ ko faj daal. mën nañ ko faj mën nañ ko faj. wala stress damay dégg tam léeg-léeg. waaw waaw di yooyu yëpp dinañ ci ñëw jaaxle waaw waaw waaw loolu mu daal ko loolu bu ñëwee ci cause yi. waa am na day am bu ñëwee ci cause yi dinañ ko ci boole mais dañ fi ne ñu ngi ci définition bi rek ci lan mooy impuissance sexuelle donc góor gi nga xamante ni daal tey bu ànd ak soxnaam day gaaw a egg wala bu ànd ak soxnaam du ci mën lu bari wala mu manque manque d'appétit sexuel lañ koy wax nga xamanteni am ñoo xamni ne seen xel sax du ci nekk. mën na toog lu du sëy du waaw du sëy xelam du waaw du am envie sëy donc yooyu ci impuissance sexuelle la bok donc gis nga léegi nag bu ñëwee ci le dysfonctionnement érectile li tax tubaab bi légui baye impuissance sexuelle indi dysfonctionnement érectile mom moo ëmb loolu lepp nak nga xamni tay nit ki sakram dina jog waye bu joggé xayna du dëgër wala dina jog mais bu joggé du yag. comprendre nga maanaam bu jógee ba taxaw ni mu war a taxawee du ko yàgg day gaaw a day gaaw a daan waat waaw donc yooyu yëpp mooy le dysfonctionnement érectile loolu ñuy wax impuissance sexuelle te loolu Pape dafa commencé bari ci ñi nga xamante ni mooy Afrique wala ci àddina bi sax la léegi feebaru monde bi yëpp la surtout Afrique rawatina sax ñi nga xamante ni amaguñu soxna sax na ci bari yenn saa sax nit da lay woor naan dama dama amee te amagul ay jeunes te amaguñu soxna xam nga kooku xamu xamu léegi ñooñu xamoo fu ñu jëm ku amagul soxla télé moom bis bu amee fu mu jëm a quelque chose donc waaye ñi nga xamante ni tamit am nañ soxnaat bari na ci donc maladie la boo xamante ni dafa jël ampleur dafa bari bari ba nga xamante ni ci feebar yi gën a bari ci monde bi actuellement ci la bokk donc loolu mooy le dysfonctionnement érectile donc bu fekkee leer na leer na de ah waaw da ki nga xam ne daal bu si waaw waaw bokkul bu jotewul dara mooy ki ko judduwaale waaw kii télé mooy ki nga xam na mu dem ba dem mënoon waaw am mooy koo xam ne maanaam ay organe ñi ngi fonctionné mhm. ni mu war normal kay waaw kay mi ngi noonu donc daal loolu daal suñ ko doon tënk maanaam mooy définition impuissance sexuelle nga xam ne ci wàllu sëy daal liñ ci bëggoon dëgg-dëgg doo ko am donte bu njëkk daal nga ko am mais léegi dootoo ko am soit da ngay gaaw a daanu soit euh, doo am na ñoo xam ne sax ba la ñu egsi ci ndaw si pare donc c'est la impuissance sexuelle donc loolu moo koy kii léegi nag bu deuxième partie bi les causes en général lan moo ko mën a C'est mu dalagul ñu bàyyi xel. ñu donc sànq boo jógee PAM nee dafa nax feebar boo xam dafa parce que li na tax mu causes yi dafa bari causes les maladies ay feebar ay feebar dañ koy donc feebar bu ci njëkk mooy lu donc impuissance sexuelle mën na nekk effet secondaire. si waaw kay ci ci ci beneen feebar waaw yu ci bëri moom sax loolu lay demee moom moom moom feebar impuissance sexuelle lu ci bëri beneen feebar moo koy causé 90 pour cent beneen feebar moo koy causé lu mel diabète mhm. donc ñi am diabète donc 35 pour ba ci 50 pour en général mhm. euh, seen diabète da leen di à l' impuissance sexuelle. léegi ñi nga xamante ne dañoo hypertension artérielle mhm. mooy tension buy aussi. en général wala AVC ñooñ tamit AVC moom waxatuñ ko moom.

dinañ ci ñëw waaw kay compliqué na compliqué na jaxasoo na ci bop nit ñi ok donc waye donc bu ko defee temps hypertension artérielle moy mhm. domaine da koy joxé effet secondaire am en général goor ñi ko am surtout dañuy dañuy am problème ci walu sey mhm. euh benen problème moy stress comme ni nga ko waxee nit ki di stressé toujours de temps en temps mom da fay da fay day indi impuissance sexuelle di jaaxle boppam ubbi di xalaat yu bari loolu loolu la ñuy wax problème psychologique boobu sax moo gën a naqaree régler parce que ci xel mi lay nekk danga ki ko am xel xel moo déjà pour nga travail pour nga faj ko day day day jafe day jafe parce que lee moom feebar yi la mën naa am bu feebar bi deñee wala bu feebar wàññi ko mu tane loolu mais bi bii moom day mooy gën a naqaree faj am na yeneen euh, maladie yoo xamante ne les maladies rénales yi nga xam ne problème rein la comme insuffisance rénale

dafa mel pour pour awraam dafa bi sax la sax parce que problème la parce que dret bi madame, muy ñew manam ci fi donc fa bu baax pour pour érection a pour day day day gis nga day day yomb quoi relation yu étroite sax relation yu grave moy indi problème yoy donc gis nga donc problème yoy fièvre yoy ñu la wax day joxé day joxé euh, impuissance sexuelle. mu gisaat benen problème mo tamit muy prostate. prostate ñi nga xamante ni dañoo prostate ñomit dañuy fièvre bobu tamit prostate bobu tamit day joxe euh, problème impuissance sexuelle donc waye gis nga kon en général c'est l'impuissance impuissance sexuelle si vous avez une des causes li koy en général complication d'une maladie à autre maladie. donc vous avez 90% da la en général à part loolu ñu ci alimentation bi euh, comme on dit, jumbo hier, affaire pour dugg ci détails mais vous tamit da koy vous donc une bu vous ci une

kon daanaka moom boo moytu koo ko faj di nga fa fajaale yeneen feebar di nga fajaale yeneen feebar yi waaw léegi nag problème bi mooy en général il faut nga xam diagnostic pour xam nit ki bu la boog bu la waxee nga sa xel yow mën a dem ci en général ki lan moko dal pour nga meuna a faj kay ba pour pour feebar pour fajj bi meuna a meuna a a nga xam budé ben fièvre moko ko jox fièvre boobu bu dee ñëw day ñëw feebar ngay attaquer ngay gëna a attaqué waaw bu fièvre wéré rek <laughs> aha euh, donc mom mi ngi noonu donc bu ko défé fièvre la phénomène la bo xamanteni surtout légui dafa meuna a tey dafa mën a tas néegu sëy waaw waaw waaw sey yu bari mi ngi leen di mi ngi leen di yàq. waaw ah, jigéen ñi moom quatre vingt dix neuf virgule neuf pour cent bu góor gi waaw waaye bu a dañ dañuy dem parce que mooy mooy mooy boo xoolee rek li li olof di wax rek naan na jabar da nga koy dëkkal dëkkoo ko. dëkkoo bi mooy nga mën a séq ak moom séy ak moom ci kaw lal bi mais bu fekkee nag loolu amatul am na ñoo xam ne waaw am na ñuy toog muñ am na ñoo xamante ne mën nañoo toog waaw am na ñoo xam ne dañuy toog muñ am na ñoo xam ne mën na laa bàyyi nga comme ni nga waxee nga faju mais am na ñoo xam tamit boo fajoo wéroo ñoom dañuy dem seen yoon la boo yoroon ay millions dañuy dem donc phénomène la boo xamante ni mi ngi tas sëy yu bëri te ñun xëy na nit ñi rendre ci compte léeg nit ñi ne waaw lan moo tax mu tas ñii kenn mosu leen gis ñu jotante waaw kay waaw jaaxal nit ñi ñoom ñu divorcé nañ ne cell rek cell waaw fekk na nit effectivement effectivement parce que yu bëri yooyu da ciy am da ciy am parce que keroog dafa am na ku ma woo ni ma dañoo seen jëkkër léegi moom jëkkër yi am na ñetti jabar yéegi ñett yëpp kenn amu ci doom te léegi moom mooy aawo bi <laughs> comprendre léegi ñaar ñi dem nañ mais moom moo fa nekk te nee moom mi ngi bëgg a dem di ko muñ waaw waaw te ñooñu dem nañ léegi mi ngi waxaat loolu xam nga te léegi loolu xaar loolu sax beneen problème la boo xam ne moog lii dañuy àndandoo dox dem mën nañu bañ a jotee dara a jotee waaw mën nañu bañ a jotee dara mën na am ngóoram waaw waaw te du am doom borom problème la loolu tamit moo wax borom problème waaw infertilité infertilité bu ah, yooyu tamit loolu bu ñu demee bay wax ci am doom dinañ ko ci dinañ ko dinañ ko dinañ ci ñëw moo ni mu tasee sëy yi te dafa nekk feebar pa feebar boo xam ne tamit nit ñi duñ ko waxtaane Sénégal dañoo xaw a am kersa boobu dañoo xaw am kersa boobu maanaam mais dañoo waroon di am ay jàngat yoo xamante ni wala ay ay fu ñu koy jàngalee daal maanaam sëy dafa nekk loo xamante ni. ci famille lañ ko waroon di jàngale waaw waaw kay waaw loolu mais ñu bëri am na yoo xam ne dañ ko war a xam préparé découvrir seen bopp waaw waaw kay effectivement waaw tey nag li si gën a bon sànq ngi wax mhm. am na xale yu muy dal mhm. bëri na sa xale yoo xamante li leen koy teg la maanaam nekk bi ñuy nekk xam nga affaire comme affaire sexualité kenn du mhm. leen ci wax dara te bëgg na ñoo xam ndax loolu bokk ci ñoom la ci la ñuy tombé ci ay vidéo yi pornographie la waaw kay léegi nag comme euh, peut être xale boobu mosul gis nit ku sumee ko daf yaram neen waaw dañuy nekk ci vidéo yi di seetaan effectivement seetaan googu mën na leen jural ñuy fooye seen bopp hmm. mën na leen indil impuissance sexuelle loolu tam ñu xam ko effectivement fa laa jëmoon sax fa laa jëmoon parce que maa ngi woon ci maladie yi mais deuxième deuxième partie bi mooy loolu li nga wax ni Pape lu am solo la parce que bëri na ñoo xamante ni seen feebar léegi mooy boo xoolee xam nga bi ma nee jeunes yi ñu ci bëri duñ mën nañoo bañ a feebar mais li leen koy indil mooy comme ni nga wax noonu dañuy seetaan ay filmu pornographie ba nga xamante ni chaque jour ñuy daanu léegi wala ñoo xamante dañuy dem ba dañuy def la masturbation di fowee seen awra ba ci am mhm. donc yooyu bu rek donc day commencé donc donc donc gis nga problème la boo xamante dafa yaatu dafa yaatu ci impuissance sexuelle donc moo mu diagnostiqué carrément parce que feebar yi koy joxe moo xaw a bari mhm. masturbation day mhm. tax ñàkk ngóor mhm. ba waaw effectivement waaw doo ko mën dara doo ci mën dara mooy li ma sànq ci commencement bi rek parce que bëri xam nga jeune bu amagul jabar naa la damaa néew kattan kooku bu amee fu jëm léegi eh, moom moom dem na quatre appui te demagul ci lamb ji commencé <laughs> <laughs> <laughs> waaw c'est extraordinaire donc uh-huh, mi ngi noonu. waaw xam naa kon daanaka boo xoolee leer na. leer na comprendre nañ xëy na. ku déglu li nga wax teewlu ko comprendre na maanaam ne diggante bi am ci différence bi am ci ci ñàkk kàttan koo xam ne mosu koo am ak ki mu dab ak ki nga xamante ne par dafa néew kàttan dafa néew xam nañ sax moom yàgg naa dégg ñu koy wax nii rek dafa am sax loolu sax li ci gën a garaaw sax day gàttal fan mooy bouillon yooyu day gàttal fan parce que moom maanaam ñi ngi koy lekk mais day rey nit ki ndànk-ndànk sama uh-huh. mu ne mm-hmm. Mauritanie mm-hmm. am na fa ne buñ bañantee ñu am doom waaw kay de moom la leen tàppe waaw bouillon yi la bouillon yi waaw moom la leen tàppe effectivement waaw yoo xam ne sax même fosse fosse bu xaw ma lan moom lañ koy vider fosse bu fatt ak yu noonu def ko ci pour pour mën a kii yooyu waaw <laughs> yooyu même am na ku ma dégg sax mu ni boo jëleen benn bouillon rek nga teg ko ci zinc fanaanal ko ah. teg ko ci zinc rek boo yeewoo da nga fekk zinc bi bënn xumaag ba ah, commencé koo lekk waaw loolu xam nga jar na testé ah, xam yooyu tamit bu amee sa grave c'est grave na état bi waaw yooyu koy defaree lu naturel lu naturel lañ jël euh, xorom waaw ak euh, laaj ak mhm. laurier ak laurier ak persil. yooyu bu ko walee ba moko mën na nek bouillon. non dana nekk bouillon naturel. effectivement euh, épice. ni ñuy wax épice mën nañu am épice naturel. yo xam dañ koy défar té day neex té amul ben problème. wa té du am ben problème produit chimique. wa euh, kon xam nga <laughs> professeur comme ñu bàyyi mbokk ñu mm-hmm. arrêté première partie bi fofu deuxième partie bi incha allah rabi ñu ñëw ak euh, nit ñi ci li nga xamante ne mooy yan solution mo ci am. solution yoo xam ne maanaam yu nit ki maanaam nit ki di fàggu pour mu mhm. bañ kaa dal mhm. wala wala boog ki mu dal ba pare sax kay ki mu dal effectivement waaw ki mu dal mhm, waaw nan lay def ba mën see génn mën a wér euh, ñaari façon yi muy benn bi muy comme ñëw seet si ku mel ni yow xam ni am nga ci xam-xam macha wala ay tegtal naturel yoo ko si mën a jox beneen bi tam prévention nit ki nan lay war a mën a dundee ba yu mel noonu bañ ko dal am naa ci deuxième partie bi incha allah incha allah incha allah d' accord ñu ngi lay tàggu bu baax

dinañ leen ko indil indi leen tamit ay solution comme ni ko Pape rek ay remède moom it boo gisee mu ci sonn loolu la bëgg nit ñi jariñoo ko mooy mu nit ñi am solution am remède maanaam xam-xam bi nga xamante ni mi ngi Afrique mi ngi Sénégal war nañu ko mën a exploiter ba nit ñi ku nekk gis ci sa bopp mais waruñu ko bàyyi rek mu nekk luy nelaw ba ñi nga xamante ne sunu genre gi nga xam ne xam na xas nañ ci xam as tuut bis buñ fi yàlla jëlee tamit day gën day gën a waaw yóbbaale ko day xaw a doy waar waaw donc bu ko defee nag yu mel ni tamit day baax euh, ñu leen di jox ay solution

bala